la situation chez moi. Vous voyez, c'est ça la situation chez moi. Vous tout ça, char de combat, etc. Tout ça, c'est pour moi. Je ne suis pas condamné. Il n'y a pas de décision judiciaire. Mais je suis un citoyen libre dont on empêche de circuler et de vaquer à ses occupations. Donc tout ce que vous voyez là, et toutes les issues. yoon boo jël fi mu ne nii nii la juge terewu ma génn amul lenn lu ko tere mais ne nañ waruma génn sama kër loolu mooy Sénégalu Macky Sall et voilà ce que nous

crois désormais, vous êtes très courageux. Avec votre fusil, vous tentez, vous tirez sur le Ça, c'est pas du courage. C'est pas ça le courage. On vous a pas formé pour ça. On vous a pas formé pour tirer sur le véhicule si vite, désarmé. C'est ça la police de Macky Sall. C'est du banditisme d'État. sommes considérés comme des nervis, mais pas des policiers. Parce qu'un ne tire pas sur vous. Vous ne pouvez même pas le risque des gens. Moi, là où je que je peux vous faire Quel risque y a-t-il de charger euh, un fusil à pompe pour tirer sur C'est ici que ça se joue. Ça se joue ici dans la tête. Vous n'êtes pas des criminels, vous êtes des citoyens sénégalais. Demain, on va se retrouver dans la rue, vous et moi. Probablement, on n'est même pas. ma Sall jarul li li mu leen di def moom bu ko nangu. soo tiré woon nit dee fi après lan nga ci gagné. absolument donc utilisez vos cerveaux. Donc voilà, il est interdit de sortir de chez lui. Nous pouvons considérer euh, qu'il est en résidence surveillée. Il veut déposer son fils qui a cours à 12 h vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. la Parce qu'un ordre, aux ordres manifestement illégaux, nul n'est tenu d'obéir. Mais voilà euh, à quoi est réduite aujourd'hui la police, à se mettre au service des choses illégaux, illégales disons. Donc il ne peut pas amener son fils à l'école, interdit de sortir. Donc personne ne peut ni entrer ni sortir du quartier. Donc yéen a ko gisandoor yéen sénégalais yi fii ci cité Keur Gorgui Ousmane Sonko qui voulait amener son fils à l'école et interdit euh, de sortir. Une ruelle barricadée par la police. Nous allons voir où ça va

Hier, des policiers ont photographié ici mes fils, dugal ko ci TikTok pour dire que les fils de celle de Sonko ne vont pas. Ça, c'est pas l'ordre de la police. On expose ma famille. mais c'est pas méchant, parce que moi, ma famille, elle a fait le choix comme moi. Je dis à tous les Sénégalais, ce que mes, ma, famille vit, amul benn famille bu koy vivre. leen di saaga ñu ngi di góor ñu ngi leen di tere dem euh, jàngi. Mon épouse a eu du mal à sortir ce matin pour aller au quand les gens parlent de sacrifice, il n'y a pas de famille qui subit plus de sacrifices au Sénégal que la famille de Ousmane Et aujourd'hui, vous tous seen i doom ñu ngi école di jàng Macky Sall doomam lekk na xaalis réew mi ba tool ni mu toll mi ngi wër di dox soxla mais vous on vous dit le fils de Sonko ne doit pas aller à l'école donc fan ngeen ko def donc euh, vous avez vu par vous-même euh, son fils interdit d'aller à l'école son père interdit de le ramener à l'école résidence surveillée illégale illégitime lii moo xew cité kër góor gi lii moo xew cité kër góor gi lii mësul am du jamais vu au Sénégal il est interdit de sortir doomam mënul jàngi école te amul benn juge bu dogal lii lii moo xew fii ci cité kër góor gi nous vous prenons tous en témoin de ce qui se passe au Sénégal cette dictature qui est Donc euh, il est obligé de rentrer chez lui parce que mënul génn te su forcé woon génn ay il en a le droit ñu ne dañuy yee na te yàlla xam na ne ñoom képp ñoom ñooy yee na ndax nit bëgg a génn këram nga ne doo dem doxe say soxla ci loo xam ne teguñu ko fenn au nom de quoi au nom de quoi donc euh, va voir il va essayer de passer par l'autre chemin va essayer de passer. Donc ils ont reçu ordre, comme ils le disent, qui ne doit pas passer. même si son fils doit aller à l'école mbokk yi lii moo xew cité Keur Gorgui Ousmane Sonko dañ ko tere génn koñam te mënul sax yóbbu doomam école waaw yi nga xam ne mu ngi am cours mais no donc gis nga leen da nga defar seen dispositif

pour rappel Ousmane Sonko n'est pas sous résidence surveillée en tout cas benn juge dogalu ko mais tey jii son quartier est encore assiégé une nouvelle fois lii na duggalit am na fi amaat fi waaye xëy na dañ ko ñam mu neex ñuy dolli su mu nekk nii jaar nañu yoon bële ñu ne mënuñu génn jaar nañu yoon bi aussi ñu ne duñu génn du génn cité kër góor gi ñoo ngi dem ci beneen yoon bi pour xool parce que dafa mel ni ñoom ñu apparemment ils ont reçu l'ordre que bu mu génn koñam il n'a pas le droit de sortir donc Ousmane Sonko n'a pas le droit de sortir chez lui tel est l'ordre reçu par la police ci nekk ginnaaw Donc il a voulu conduire lui-même son fils à l'école, mais il est interdit de sortir du quartier. Donc maanaam cité Kër Góor gi fii Ousmane Sonko dëkk kenn amul droit dugg kenn amul droit génn rawatina moom donc euh, ils vont priver de liberté un citoyen sénégalais mais surtout priver de liberté un jeune qui doit aller faire cours donc euh, il est clair que la liberté de se mouvoir dans ce pays est restreinte dafa am ñoo xam ne lu ñu waaye lu ñu neex wax lu lañ neex def mais am na ñoo ne pour ñu génn seen voilà li moo fi xewoon mbokk yi cité kër góor gi ah. rek moo fi xewoon euh, ñu tere génn ñu tere Ousmane ko génn këram yóbbu doomam mu jàngi gis ngeen oto bi aussi ba fa bëggoon génn mais interdit maanaam amul droit génn maanaam koñ bi képp ku fi dëkk amoo droit dugg ci koñ bi ci koñ bi nga am soxla nga ñàkk ko am nga war doxi say soxla nga war ko bañ a doxi maanaam li fi xew fii musul am Sénégal te yéen yéen amul ko seede vous êtes témoin de l'histoire vous êtes témoin de l'histoire jërëjëf